asalaamaaleykum waa groupe développeur Sénégal ak waa Sénégal tey incha allah eh, dañuy continuer suñu série de vidéo ci wàllu eh, mon plan pour devenir millionnaire jot nañ ci def ñaari eh, vidéo benn bi mi ngi doon leeral ñetti points yu am solo ci sa yoonu nekk millionnaire beneen bi dañuy jàngal nan ngay tànnee sa li nga xam ne moom ngay def business tey incha allah dañ war a waxtaanee ci. nan ngay développer sa business ginnaaw ba ko tànnee ba pare nooy fexe ba mu jëm kanam ba mu nekk yoon bi nga xam ne moo lay yóbbu nga nekk millionnaire léegi euh, dafa am benn concept bu am solo bu ñuy wax PPSAF première P bi mooy lan prospection prospection mooy nit ki booy business da nga war a nekk koo xam ne da ngay wut ay client client yooyu boo xoolee say am di jàmm ñi nga dëkkal say contact Euh, groupe whatsapp yi nga bokk wala groupe business yi nga bokk wala ngay fay facebook mu lay defal ay boostage wala whatsapp ngay def boostage via facebook wala whatsapp yooyu yëpp ci luy tax nga am ay client la client yi su ñëwee ba pare nag am na lu ñuy wax deuxième P bi mooy présentation mooy présenter sa business nooy leeralee produit bi nga xam ne moom ngay commercialiser ba client bi mën ko jënd yan njëriñ moo ci nekk ak euh, bu ko client bi amee lan la koy jural ginnaaw prospection présentation lu ci topp mooy lu ñuy wax suivi suivi mooy nga fexe ba client bi jënd nga topp ci parce que client tekkiwul ne boo ko présenté sa produit rek day jënd ci saa si am na ñoo xam ne dina la dinaa si bàyyi xel am na ñoo xam ne dina la d'ici fin du mois am na kuy jënd ci saa si tamit kon loolu yëpp day wane ñiy réussir dañuy nekk ay nit ñoo xam ne dañuy sax dañuy sax ci xamale seen business dañuy sax ci topp client bi ba mu jënd kon ginnaaw suivi boobu si la achat di am achat mooy mu jënd sa produit wala mu jënd sa service donc doomu adama bi une fois que client bi jënd nag ba pare li ngay def mooy li ñuy wax F bi mooy fidélisation mooy nga fexe ba client bi kontaan ci li nga ko jaay mu am service après vente bu laajee ay leerlu nga leeral ko euh, nga fexe ba nga xam ni moom mu def la ki nga xam ne bu soxlawaatee si yow lay ñëw client boobu ci boppam mën na la booleeg ñeneen parce que bu amee satisfaction sa produit mën na la booleeg ñeneen mën na def sax ay vidéo témoignage wala ojo témoignage bu wane ne yow mii sa produit bi ngay jaay baax na kon PP SAF muy dimbali nit ki pour mu mën développer li nga xam ne moom mooy business sam kon prospection la wër ay client présenter sa produit def sa suivi ba pare fexe client bi jënd bu jëndee ba pare nag nga def fidélisation kon agissons maintenant euh, vidéo bi aussi na ngeen koy jotali aimé ko euh, jotali ko seen am di jàmm ñoom tamit ñu xamee ay yoon yoo xam moo leen di yóbbu ñu nekk ay millionnaire jaa ngeen jëf